yàlla daal di ko dekkal ñu dem ko kaafir nga xam ne moom la doon laaj de ba ko yàlla dekkalee xaala wax yàlla ne ko kam naka lay labis sa nga foqee xaala mu wax ne labis soxna ma yow lu def mu ne benn bés ci ba wax benn bés fàttali ko rek lu dul bés ndax tey ne ca dëkkam ban yor yor jot mu ko laaj ci foofu mu dee te bi mu dekkee ci waxtu takkusaan la mu ne xaw baax dayoo ñëw ci benn bés te moom def na yëpp ci benn bés bi moo tax mu ne bés benn bés laa fi am amatu sax bés benn bés laa fi am ah la wax yàlla ne ko bal day ba bés sax sax nga fi ñu ne ko am téeméeri at yàlla ne ko sax nga fi téeméeri at nag kon suuf seetal ñu def tax na ñu ko ci ñun sa seetal jëm bi nga rek gën si ñëwee bu doon loolu gën a ñu coono ñu ko xet mu def ko ci fañu ba mu nga mel lu mu meloon ci biir bu mu ko fàkkee ba saa yu bari naan sa njëkk lañ defal bëgg naan mu seet ko dara sa seen buur mu nga meloon mu doon ko jawee weer dama yàlla sa na sa doon soppi bu mu wér kon su seetal nag ilaay maa ngi jëm ci mbaax la mu ne ko seetal mbaam mi nga waroon nag mu seet mbaam ma moom fekk muy yàq yu tudd def ci yaay yu néew da ci seen nit muy melkati yàlla woon ko loolu ba mu gisee nag mbaam ma nam dee ak da yaa xam ya weeree di melkati yàlla ne ko def nañu loolu ngir na nga xam yow wala na yàlla ka ak ci nañu def la ay man la koy dekki dina fi ñëw ñu ne yàlla la def ngay man la moo xam ne ci ñëpp xam ne yàlla mën naa nekkal ku dee yàlla ne ko yow fii seetal da ngay xam jëf yàlla la ma xoolaat na yàlla xam ne ci loolu mu lay ko wax ak seen yàlla nga am yàlla bu leen nekkal ci daal sa morom yàlla bu leen nekkal ci daal sa morom rek waa ba yàlla yëpp booloo waaw ba am def laa moom mat na sëkk day fa ñun ci waa waa ma tamit dekkale ba tey waaw sama nag ci waa topp na ma de ko laa mën a aw yàqu balaa xam ne yàq yàq boobu la ba noppi bu ñu rek yàlla daal di ko wax daa aw yàqu daal di ko wax daa am jaay rek waaw mbaam ma daal di jóg taxaw rek ñaax rek daa sama yeneen ko gisee rek loolu nee na moo fay ci jànnoo ba nga xam ne moo fay ci jànnoo nag loolu nag alors mu wax ne alors mu dana xam xam-xamam kenn ne ñu nga xam ne yàlla xajul maa jox man wala ko ñu ci ko mu ne léegi léegi war na kenn ne yàlla daal na ka am ci kattan rek yàlla ñu ñu nekkal la mu ci tay ma tay rogo wala xam ne war na maa am na benn jaar ja dëkk ba ñu ne koy yaatal mu ne mën naa fay ñu ne ko wala ñu sàkk ñu ci def dafa rek ñu xam ne lenn lu ma téeméer yaa def ci léegi dañuy ko la fay ñu ne lay mën a ko lay tere waaw ñu ne ma koy wax ñu waaw mu ne ma koy lay tere di di di ko ci werante waaw te ñu ne ko ma koy wax lay ñu ne yow ma koy wax ma koy wax ko lay tere ko tere tànk ñu ko wax ko ma ko am ci am ba ñu ko rek boo xam ne lu ñu tan ñu ko rek lay mu ne ñu ko rek ñu ko rek lay mu daal di dal waaw ñu ci dem ci ñu ci dem ñu gis nga affaire bi ñeent fukki at rek la dund waaw doom bi moom dund na téeméeri at ak ñaar fukk mu yetti ñeent fukk waaw su dee nag xam naa juróom ñett fukki at ñoo bokk def di leen masayru nag laaj na ngi dafa àndul ak teggin naka yàlla lay dekkale dëkk bi ne gannaaw bu mu deewoon moo tax yàlla won koo kaatee ko ci boppam ray ko téeméeri at waaw gis na kaatee waaye fa mun na ci xam ne de dee na téeméeri at waaw ñu sa koo dekkal waaw ko di nga xam ne say moom la doon laajte dekkal Ibrahima yi nga xam ne laaj na fa laaj ci teggin waaw moom daañ ko won kaatee gi ci leneen lu dul ray ko rek waskur jàngatal is xaala ba waxee Ibrahima Ibrahima ne rabbi yow borom sama arini yàlla nga wan ma ay fatu yi na ngay dekkale at moo taaway dee de yonent yàlla Ibrahima moom daf ne yow sama borom yàlla na ma wan li ngay dundale waaw ku dee rek rek ala wax yàlla ne ko awalam tuumi addagani la yow Ibrahima ne mën naa dekkal ku dee yàlla ne ko ba yow Ibrahima sax gëmuloo ne mën naa dekkal ku dee ba yàlla koy laaj yàlla laaj na ko loolu mu tontu lii ñu tontu si way dégg yu dégg ala wax Ibrahima ne bale aanaam dëggal naa ne mën ngaa dekkal wala kenn lu fi nekk ñaan naa ko liyet may na ngir na dal xal bi xol sama dama ko bëgg a gis ci jamono rek waaw ba dootuma am sikki sakka waaye daal man xam naa ne mën ngaa dekkal ku dee rek laa waxte day loolu la yonent bi wax naa nanu ah ko mustaqbil Ibrahima de waaw Ibrahima sikkut waaw daf leen wut waaw xam-xamam jamono la bëggoon rek rek ala wax yàlla ne ko taxu sa jàppal arbaatan ñamante mina tayri ci njanaaw wala bëgg nga xam ay dekkale ko dee nag wutal yeneen ci njanaaw muur yeneen ci njanaaw benn njanaaw ba mooy taawus ci kaw ci kaw boobu nga xam ne moo gën a bëgg àddina waaw ci mboolem yàlla bind foo ko gis mu ne waaw jureeku di sigira di niiw di wane boppam bëgg ab taar rek la ko yàlla dindee ak fan moo fi gën a bëgg lekk du suur mukk ak baaxaaj moo fi gën a xer du dawru mukk ak sirat moo fi gën a bëgg ab sëy yeneen ci ñaar yooyu yàlla ne ko jàppaleen parce que na fa jàngal leen yi rek jëm ci yow ray leen ñoom ñëpp mu ray leen ñoom ñëpp boole leen daggate leen jaxase seen dund yaa seen yàpp ya tëdd ko ba nga xam ne tey mu nekk genn nakk koo xam ne lépp a ànd su ma ñaal ko defal alaa simi jabarin ci yëpp da ci bi dañu jubloo yow ñu mun na ci ñoom juloon xaaj waaw yàlla ne ko mbooleen waaye ba noppi ku ci ne na nga dagg boppam nga tëye bopp ba ci bopp bi rek la leen di xamee ci def nag ñu boole ko wal ko ba nga xam ne tey nekk na genn nakk mu dank ko mu dank benn dank teg ci wii daj dank benn dank teg ci wii daj dank benn teg ci wii dank benn teg ci wii ñu ñenante dank yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo fa booloo waaw su ma doon na topp xoolee nag mu ne ko téye ci boppam waaw kenn ci ñoom nga xoote mu daal di téye sira boppam sira ne sira la bokk ci sira ci ci bëre def lëf lëf lëf lëf daal di génn la bokk ci moom ca bëre ci def lëf lëf daal di génn ba booloo waaw daal di nekk sirax bu mat tëkk daal di ñëw rek waaw jot ca bopp ba rek sirax nga daal di def daal fële daal di daal di sab mu ne tikab tikab bi def noonu mu ne baaxaañ baaxaañ bi def noonu mu ne tan waaw tan bi def noonu waaw moom la ko yàlla wax ne moo doon na topp xooleen yaa ti naka danañ dikkale saa yam mbir ñu joxe gaaw de ñoom ñëpp ñuy daaba ci kanamam nga naa mu leen nakkoon de buur ne ko waalam xamal yow Ibrahima am na laa naka yàlla na ci suñu aji na lagu ci ngërëm ak suñu aji xarañ lagu ci ngërëm de Ibrahima moom noonu la gisee waaw ci gisab jaxnoon waaw na yàlla mën naa dekkal lu lu dee ba noppi rek fekk na nag nit ñi ci léegi aare yeneen ci yëf yooyu jikko yi nga xam ne yàlla nga ko sabab ci jëmmi doomu adama ñoom ñoo ko lamboo doomu adama yàlla am ko bindee ci anaasi larbaati ci yaram ci cosaan yi suuf ak ndox ak safara ak jaww diw ak ndox dañu àndee yooyu yooyu ju xër ak nayo safara ak nayo safara ak jaww dañu àndee yooyu ju mer ak taf baneex ku ci nekk itam mu jabar xeer daal di sëyeeg kañaan nay daal di sëyeeg mbañeel mer daal di sëyeeg rëy daal di xam bakkan nag moom moom nit moom moom amu jabar moom moom jigéen boobu la ci dafa nekk mu jabar maayam cër ak nay xeer dee ci na kañaan ñaqaloo nay dee ci na bañaan meer dee ci na rëy ak sax mbana nga xam ne moo leen doon ñaar sax mu mën dara bi comme suñ jamono ñu ngi am jabar juróom-ñaar yooyu ñooy juróom-ñaar yi biir ci safara ci nit ki boo xamee ne jaam bi jaar nag ba kanam ba dindi juróom-ñaari jikko yooyu ci moom te yëpp yonent yi gannaaw yore ko lamboo rek bunti safaraam yëpp tëju na te dafay dal di yéeg malakuutu sama ay rek fële waaw yonent yi gannaaw yi Ibrahima tànn seen yonent jikko yi boo jaadee sa bakkan dan la abal ko ci yeneen ci jikko yooyu rek daal di yéeg malakooti sama yi naka Ibrahima defoon de soo xeexee sa bakkan ba bëgg lekk bi nga xam ne moo dal tam nga laabal sa bopp tey ba dindi ko ca xeexee sa bakkan kër gi nga xam ne moom la baaxaañ dëkkee nga laabal sa bopp ba amatoo kër lu la yàlla jox ñu doy la nga laabal sa bakkan waaw ci bëggat tey gi nga xam ne moo nekk ci sirat waaw ba nga xam ne waaw laabal nga sa bopp nga laabal sa bopp ci bëgg taar gi nga xam ne moo nekk ci waaw taaw waaw bëgg àdduna waaw bëgg sañse waaw bëgg daag ak bëgg ku la gis soo xamee ne yooyu waaw nit ki dindi na ko ci bàttam rek waaw dal di dëkk ma la seeti sama ay nga xam ne fa la Ibrahima nekkoon rek safa yi jëm ne Ibrahima la seeti sama ay toolam ni waalam xamal nag am na laa naka yàlla na si suma ji man la mu sumbura màcc na ci xaram ni sumbura teewoon ah nit ki sarax yaa ngi koy mot aywa sarax na bañ def na sarax bari la moom. daal di leer masalu lazina melaw ñaaña yunfiqoon danañu sadaxaan la alal waay jub seen fi sabilillahi ci yoonu yàlla ñi nga xam ne ñu ngi sadaxa seen alal ci yoonu yàlla xam nga nañ melam am na sari habatin tam sat an batat saxal nañu sadaxa seen abira juróom-ñaari jub mi ngi mel ni benn pepp bu saxal juróom-ñaari jub ci kulli sin bi la tin aju nekk la ci wetu jub mi atu abatin téeméeri pepp rek jub bu nekk ji waa saxal téeméeri pepp xanaa loolu di juróom-ñaar téeméer boo xamee ne jaam bi sadaxa na benn yàlla daf ko consulé loolu moom di ko fay benn ba muy sukk wala ba muy juróom-ñaar téeméer de wala yàlla we daa fa dana di sin li man dafa ñaal ku ñu soob wala yàlla waa seen aji yàlla nga ne lam alimun aji xam na mooy mbir la sam rek laa waxee lay ba nga xamee ne wàcc na Abdurahman ibn Awf ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe naa sama genn wàlla xaral yëpp ci yoonu yàlla yonent ne ko yàlla yàlla barkeel li nga joxe ak la fa def alalam ja di di di sëkkanam nii sax ba nga xam ne tey moom mujj na xarala ma ngi dayo de waaw moo ëpp la xaaroon gannaaw bu mu dee ay ay ay ngarka lañu xamoon di gas pour yi nga xam ne moom la tóoloon waaw di ko dajale pour ñu mën ko miraase jenn jigéen ji gënoon ci jabaram na ne waaw rëbb ak suñun bi nga xam ne tey moo di wàllam moom di ko nit nañ ko jox rek juróom-ñett fi ci néew bi door waaw ba munu bi waaw dafa nen miraas waaw ñu daal di ko jox loolu rek loolu rek nga xam ne dafay lu ñu door gan waaw bari na waaw Ibnaas Marina Saan ca la joxe junneel jëlem Yusuf waaye burna cone ak téeméeri naaru góor yu ànd ak seen lal teg ak seen i seen i teg waa ak junneel yi door ñu sotti ko ci kankam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wallaahi ma dara seen ma faala babal loolu Usmaan jox dootu ko lor gannaaw tey nit man day gëdëm naa ko yow yàlla yàlla na ko gëdëm rek yooyu masali ba fi na nelaw ñooña yén fi kono danañu salaxaam waala maa juttan ci sa biir ak yoon yàlla xama sali a basin kon nelaw topp la am dana saxal nañu sala sama bira juróom ñaari jël ci kulisin bi la sin ajuna kala ci yëpp jub ñeeto a basin téeméeri topp naka noonu seen sarax yi itam dañ koy ci lene ña si juróom ñaar téeméer wala yàlla yo daa fa danañu ko li ma ne saa ñal fu sen wala yàlla waa seen aji yàlla nga ne lam alim aji xam na mu kay ñu ko doon ko rek ren dakk yàlla dafa jëkk wax ne man jaa abil hasanati falahu ashru amsaalihaa suñu yonent yàlla na ko yàlla fay ci xeetam yi ne yàlla dolli sama xeet mu ne kamasali habatin ambatat sab'a sanaabila fi kulli sunbulatin mi'atu habatin mu ne yàlla dolli sama xeet mu wax laa yow ren démb man ko def yuqridu llaaha qardan hasanan fa yudaa'ifu lahu ad'afan kasiiratan loolu ëpp nañu juróom-ñaar téeméer de waaw mu ne yàlla dolli sama xeet mu ne innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bi xayri hisaab yàlla dana leen fay fay goo xam ne amul ab lim nag de waaw mu ne yàlla gërëm naa gërëm naa gis nga jaam bi soo xamee jullit am na itte itte yoo naa def lu bon te defut ko yàlla di ko ca bindal benn bàkkaar su fekkee itte naa def lu bon def ko benn yoon benn yoon lañ ko koy bindal su fekkee ni itte na def lu baax nag te defu ko yàlla bindal ko ne def na ko su ittee def lu baax def ko yàlla di ko bind benn yoon fukk la koy bind ca dem ca nuyoo jël ñoo tax de yonent ne def pare ñaan na koo xam ne yëkki na ko ay benn benn mu ko ay sukk sukkal de lu bon soo ko defee benn yoon lañ koy bind lu baax soo ko defee ñu bind ko fukk yoon su jëf ci ba say bon bon ak say baax baax day bon da ngaa jógi dayoo ci bon lépp te it ñaari malaaka yi nga xam ne ñooy bind jëfi jaam bi raqib ak atid la raqib mooy muur bi mooy nekk ci sa ndeyjoor atid mooy mu nekk ci sa càmmoñ rek tey rek boo defee fii raqib moo koy bind fukki yoon wala juróom-ñaar téeméer wala lu yàlla dogalal rek tey rek waaw soo defee lu bon atid moom balaa soo sañee bind dina tàggu raqib raqib ne ko mu ñëw ko ñetti waxtu waaw mu ñëw ko waaw su mu ñëwee waaw waxtu yi nga xam ne ndox moom lañ ko war a muñal nag te baleer yàlla toujours waaw defu dara lu baax lu ko faral ñu bind ko benn yoon nag te rek waaw su ndox mi lay sagal na waaw bu jëkki nag ba benn benn yooyu nga xam ne yii ñu bind ko yii bañ ko bind yokk na si si si daal nga mu yokk na la perte am na fi nañ ay yëpp si kon danañu sabaxe am waxla ma ay jitteen ni sabi laay ci yoonu yàlla su ma laa yëpp doona topp tofal ci ñu maa am faqoo lañu sadaxe man nan ñaxeel wala asan du jaageen lor koo xam ne sadax nga waaw sa moromam jaam te ñaxuloo ko gannaaw ga ñaxeel mooy nga na ko maa la defal lu baax maa jàng sa mbit di taxu ko nag man la torop waaw loolu loo ko mooy nga nettali ko fi koo xam ne waaw bëggul mu dégg ko jam fen waaw noonam ne di di ko defe man wala ay ngir soxlaam waaw nangam la doon ndox fajal naa ko loolu mooy lor koo xam ne sadaxa nga nag yaar yooyu yëpp defuloo ko ci ñaxewuloo lorewuloo law ñaanale ajuróm ñu wal feen yéen dara bi ko borom seen wala xawun dé ci ragal ale ni ñoom wala am dem ñoom yesano ñu jàppee la ci àllaaxira rek waxante xaw nañ wax ju rafet maaroofin judi ji ñu xam ci yoon ak delloo aji laaja wa maxfiratin ak suturaal xaajoom xayrun moo gën min sadaqatin ci sadax la daa aajo gën a topp ko asal lor de waaw wax ko wax ju rafet te jox ko ngant waaw te suturaal xaajoom net loo ko fenn sax moo gën nga sadax ko ba noppi gannaaw ba nga di ko ñax de wala wala xam yéen aji doon la mu nga di sadaxi jaam yi alimun aji yi xelam mu ko def de te su fekkee ni tey yaa ngay sadaxe di ca ñaxe yàlla sax amul taala gi sadaxi kenn waaw te bu tax gënal li muy yéex a dugal kon su ñaxe rek yàlla nga lore mu far la dugal rek tere yaa yaa li si na amoon oo yéen gaa ngi gëm alquran waa te ci loolu waaye bu leen yàq sadaqaatikum ay sadax seen waaw bul mën ci ñaxe wala feeg lor bu sadaxe ba noppi nga xam ne wartan ngaa am yoolab yàlla nga dem ñax ta nga sadaxoon ba ñàkk sab yool wala nga lor ko rek dalla fii cam yàqam sadax bi kaaka ñun fiqu dana mu sadaxe maa la waxal la mu de ah naa si ngir gis nit ñi mel ni kii koo xam ne dafay sadax te jublu ci yàlla xanaa gis nit ñi rek la ca jublu nga xam ne waaw mi ngi joxe waaye ñu ne diwa tabe rek waaw loolu rek la ca jublu kooku itam yàlla di ko fay dara de waaw wala yooyu ñu dañuy bilaay ci yàlla wala yooyu di ko jëf yaakaar ma daa jublu bi ñoo ko dee misaalam sama sama sustaani bi sama tajur a tax la Aliya yi nekk na ci kawam trois mille six waa Kaaba yëpp jot ko waa bi ñu waale parce que soo tam mu jël ko xalkan dara nekkut ci moom laa yàq dara ñu fekk ci ñun maanaam ci ci la ñu nekk dafa ci la ñu sàggoo rek waaw ci naa fekk tam dara xam yàlla di ko dafay dara de waaw la ci njëkkal ndaxte waaw xëy mel ni suuf soo jiir ci kaw daj war a tax waame waame ci kawam parce que yow daal de boo ñëwee tuuti nga fa di fekk sarax it noonu la ko ngistal di yaakaare yow itam ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana fan la ñetti jaam pencam yàlla taxawal leen ci kanamam fii daf doon jàng alquran ci waxtu guddi ak waxtu bëccëg yëpp fii daf doon jàmbaar bi jaar ci yoonu yàlla bés tey fii daf doon ku tabe di maye rek yàlla ne leen li ma leen joxoon ana lu ngeen ci def jàngkat bi na ko man day dama daa jàng alxuraan ci waxtu yi dee waxtu yi bëccëg ñu suma bàyyi de mu ne ko jubli la ma woon dañ doon jubli rek ñu ne di jàngkat bi la de loolu nga ci jubli woon waxoon nañ ko waaw amuloo si man genn fay yóbbu leen safara de waaw fii yow loo def ci wërsëg yi ma la joxoon dama daa tàll sama loxo nday jorog càmmoñ di maye da ngaa bëggoon rek ñu ne di wa tabe di ñoo xam nañ ko loolu ay fas tay yóbbu leen safara waaw jihaatkat bi xam naa sama jaasi di dóor nday yor ak càmmoñ waaw añ fay loolu waaye jubli la ma woon da ngaa jubli woon rek ñu ne di wa ñoome rek tay de waxoon nañ ko waaw loolu mooy fas tay rek tay de dana ñett ñooñu ci ñoom lay taal safara rek laa waxee de waaw tax na ba mi jaam bi jëf mu soob ñu rëy yëpp ñoo soom bu mu fàtte rek ne jubli boromam rek bañ a jubli leneen ci boromam keneen sunu borom bi amul benn fay de wala yàlla laa di jubal ci ñaar xam ne ñaar kaafir na ñu di wax di yàlla nag waaw bu jubal waaw ñi nga xam ne tey dañoo koy far def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa toog iblis jaral mu ne ko loo yëg noonu yàlla bi mu ne ko yàlla ma yebal ci yow ndax nga laaj ma la neex naa la tontu mu ne ko wax ma ana ñëw nga ma bañ ci mbindeef yi mu ne ko yow sa gannaaw góorab julit bu maandu waaw sa gannaaw doxoonal borom alal ju bëri tey suufeel boppam sa gannaaw borom xam-xam boo xam ne dafay jëriñoo ci xam-xamam waaw tey ragal boromam di toroxal yàlla waaw ak jaaykat boo xam ne dafay wax dëgg ak ku tuub tuub boo xam ne bu dëgg la ci moom ak kuy julli guddi gannaaw bi ñëpp nelawee waaw ak kuy dox ci njëriñal waaw nit ñi ak koo xam ne dafay sadaxe ak koo xam ne waaw dafay jàngal Alxuraan waaw ne ko ñii ñoo ñi nga xam ne waaw ñoo xadar ci àddina si rek rek waaw mu ne ko ñoo dëgg nag waaw mu ne ko guur bu dëgg guur luy tooñ waaw ak koo xam waaw te sab daw réy ni waaw te du sabaxere waaw ak koo xam ne séedé joo xam ne dafa nay waaw te mbëru séedé nag borom xam-xam nag soo xam ne tey dafa nay doole ca waaw te secteur ni kooku moom dañ koy fal sax muy saytaane si nekk ci suñu jiit waaw di ñu di ñu dimbale waaw ñooñu itam ñooy ñi nga xam ne tey ñoo di ay xaritam na ñooy ñi nga xam ne tey ñoo koy dimbale de ak koo xam ne dafay jëf ngir gis solo nit ñi ak koy jëf ngir ne ko waaw ñun ñu wax rek laa fay de ak koo xam ne du yaram waaw ñooñu ñooy xarit yi ñu ko fay de ñu def leen ñoom la bañ wa masalu lazina melaw ñooñu yunfiquna danañu sadaxe amwaalahum ay jub jub seen ibtiqaa mardaatillahi ngir sàkk ngërëmal yàlla wa tasdiiqan ak ngir dëggal ab yool min anfusihim ci bopp seen ñi nga xam ne dañuy joxe seen alal ngërëmal yàlla rek lañ ci wut ak dëggal lañ ne yàlla dana leen jox ab yool wuute na ñoom naa fekkee kamisali habbatin kamisali janatin tam tool la jërëjëtin bu nekk ci tindi asaba jot na ko laa bi bi waa min waatati tam joxe itlaa meññatam joxe ni mbir ni ñu yaari fi la ne de ci saraxa nag te yàlla rek a tax kooku moom yàlla daf koy fil mi ngi mel ni tool boo xam ne dañ koy jëmbat ci aw tund waaw tund joor taw taw bëri waaw taw waame waame waame waame ba nga xam ne garab ga garab ya naa nañ ba man ni meñ ñi nag lépp liñ daan meñ ñi ñu meñ ñi ñaaram waaw fa ina ñu si waa ndam jëtu ko waa bi waa na fa tamit bandan su fekkee ni dañuy def taw bu bëri bu tafeeg bandan boo xam ne tey daf koy taw saa yu nekk waaw mooy taw bu bëri waaw daal mu sax ca rek ba nga xam ne meññam na waaw sell na ñor na kooku mooy misaalam ci sadaqa te jublu yàlla yàlla de nga laa yàlla da ci maa ngi xam ne ñoo xam ne ñoo xam ne ñoo xam ne leen ko fay de ayo di soppi aha di tim kenn ci yéen an takkoon ak nekkat lay ñeel ko jannatin tool min naxiinin ci laaram ay tàndarme la waa naajin ak yeneen tajri gën a daw min taati a ci suuf yan lan haaru yan yan lan haaru ay yan lay ñeel na ko yaa ca tool ba ay meññat min kulli samaraati ci képp ci xeetu meññat yi wa asaaba te nit min gat na ko al kibaru màggat wala te ñeel na ko firiyatun ay doom jana sa ay yëdu way ndaw ñu mbiru bu dara saa saa ba te jot ko in saarun calle a fii dal ak ñàkk rek ñoom noorun safara kon sala xattam lakk rek kenn ci yéen bëgg loolu kenn ci yéen bëgg waaw di jëndat ab toolam di jëndat di di ñàkk ba nga xam ne am na toolam boo xam ne waaw tàndarma gën a jeex xena bi di jeex yéen yaa ngay daw ñëpp ci meññat moo xam ne daal njabootam soxla seen dundee am na ko ca toolam waaw ñu yaakaar ni tool yooyu la dana ko mën ñëw di njabootam bu dee bàyyi ko ak njabootam ñuy dundee tool booba sallala bàyyi ko nga wax ndax safara ñu ne lakk toolam nekk bi ak duñ daay te ndax tam ci ñu bëgg loolu loolu loolu mooy ci xalaat dañu dañ jigéen ñi di gisal raxta waaw dafay nekk ca bàmmeel ba di leer waaw lii cëf cëf yi ba nga xam ne dara du ñu ñu yëriñ la ci sa bàmmeel nga yaakaar ne dañ la ko fay rek waaw gisal nga gisal la ndax li ko fekk ca la waral sa dara ak daal di ko lakk rek ñu ne daal la dara ci biir doon yàlla waaye nag seen bidal gi ci dem ci dem ci laa wala ci dara yàlla lakk ñu yàlla laa ti kaati alquran laa lakk bee yéen ko taxatara na ngeen xalam rek yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm alquran anfiqoo afaka leen min habbaatin min tayyibaatin ma kasabtum ci aji teew la ngeen fàgg de lépp li ngeen fàgg ci alal waaw na ngeen génne afaka yore wa mimma axrajna ak ci ay teew la ñu génne lakk ñeel leen ñeel dara ci suuf ak li nga xam ne yàlla génne leen ko ci suuf ci xeeti gàncax waaw ak ci meññat ak waaw ay pepp loolu yëpp da ngeen ci génne asaka wala tayammamoo te bu leen jublu alxabiisa aji ban ja mënuñ ci lañ tuddeen suñ fi xoolee mbir moom da ngeen asakaare ci tëcc moom te bul ne ngay seet la gën a bar ca sa tool nga bar ko waaw def ko muy asaka ja wala suñ ko dee ngeen di axasi ngeen di way jàppam laa am tax ñu dee bare bu ngeen gëmmat te fekk na yow yaa am sa bañ bi nga xam ne soo koy sax sax da ngay gëm ni nga xam ne nii moom moom lay saraxe yow de la nga bañ ba bëgg la ko ñëw yàlla it bëgg ko soo saraxe xamal la nga xam ne moom la gën a bëgg nga xam ne waaw bëgg la ko ñàkk nga joxe ko loolu la yàlla nangu waaw daal soo sabee la nga xam ne yow yow sax tuuxi la ko ne moom lay saraxe yàlla it bëggut yàlla nga xam ne ñu la wax ne yàlla ak ñu aji doy lañ yéen seen sarax nii ñu koy sant la ñu def te na ngeen xam ne yàlla doy na yéen si yéen yéen seen sarax yéen yéen a ko xaaja de sarax yéen di saraxe yaa sàllal leen rek benn yoon yan saraxe loo xam ne am na njëriñ rek ak seytaane seytaane yaa ngi dëkk dana ñu ragal loolu al faqra ñàkk seytaane ci iblis ak nga xam ne dara moo tax de ñàkk ñàkk bi bi di meloon moom la lay tëkkee moom la lay ragal lool day saraxe def la wax bul saraxe day joxe nii yaa damay ñàkk de doo tax yow di ñëw sa jabar yi doo am loo bàyyee sa doom yi yow am rek tamit diga leen di sakkaay ci may iblis moom say sant yi na nga may rek tera asaka wala yàlla moom yaa ngi dëkkum danañu doxal leen maskara kon mbaam ñu ne ñu tuddee ko moom ci seen i bakkaar da sabram ak wërsëg yaa yàlla moom ñu naa la sabaxeel ma baal la say bakkaar taxiital la la neen iblis ne la bu saraxe mukk de boo ko joxee ñàkk rek waaw misi la balla de wala wala waaw seen abi yàlla nga ne leen ali nga aji xam ne ay mbindee xam de amul fenn sarax soo xam ne da nga ko saraxe li ngay soqar ci nañ ko ci loxol juróom ñaar fukki seetaan waaw iblis daf dee ngëb dee di dem lig waaw ñu soqar bi waaw keneen seetaan ngëb ba ba muy juróom ñaar fukki nga soqar bi nañ ko rek la affaire waaw taxi ne mu ngi lay waaw ragal loo ñàkk li lay digal xaay rek soo def yàlla itam mu ngi lay dool mbaam waaw te mu ngi lay dig itam wërsëg yoo xam ne dafay xëy di def yonent bi wax ñu ne amul benn jant boo xam ne gën a sonk li muy yaari malaaka di yëngu ci wetak nday jooram di yëngu ci wetak càmmoñ malaaka mi ci wetak nday jooram dafa wax allahumma aati munfiqan xalafan yàlla kii dindi la alam yàlla na ko jox la leen la fee wute xalafan jooju ñu waxee xee moo tax xale ji jëree bi bëri fan ngay gis ñu def kolof kolof kolof kolof ñu nit ñu def baatam malaaka bi li nga xam ne ne itam waa malaaka bi nekk ci càmmoñ jant bi itam mu nga naa allahumma aati munfiqan xalafan de yaa képp kuy tee alalam yàlla la xalak xalal la yaa moo tax de xaras du tax a ñàkk mukk de ku la gën a joxe rek waaw moo la gën a bëri waaw wërsëg yonente ne ne sallallahu alayhi wa sallam saraxlu du yàq jaam ñu ne ak yëkkati ko rek ci gën a suufal boppam waaw ñun ñoo dañ koy gën a màggal rek tey waaw saraxa itam du wàññi wërsëg mukk de ci gën a joxe waaw kooku ñu gën a bëri la rek laa fere waaw lañu wax ñaari dërëm la rek di leen di ci tenkali boo koy joxe di ci mbagg bi daal di wàcc rek laa fere boo ko tee itam waaw ba ca mbagg bi doo ci ñëw rek laa fere am na benn wàll yi nga xam ne daf doon wër ci àll yi rek di jaamu yàlla waaw soxla yi yóbbam boo xam ne waxtu lekk jot na rek yàlla sàmmi ko benn lu mu door mu jaay jënd lu mu lekk rek añ waaw ba seen nekkati ci jaamu yàlla boo la boobu waxtu la jotee rek dinaar la wàccati muy dox nag bañ jox ko benn dinaar ñu fab def ci poosam rek rek waaw ñu dox ba waxtu woo dinaar ba doon wàcc ñu ngi leen nekk dinaar ba wàcc rek laa waxee rek mu ne yow sama borom mu ne ko al al kéemaafin jeey bi ati kanam si loxo bi waaw xam li nekk ci poos bi doy la ci xay bu ko bañ a ñëw rek waaye def ci ko poos xay bi di joxe loolu ñu nekk yooyu ci danañu jox alika ma xam-xam buy jariñ mën ya faaw ku mu soob yàlla day jox xam-xam buy jëriñ kum soob yàlla ñu ko jox tey man yootaa walaay ku joxeef na ko alika ma ta xam-xam buy jëriñ xarit yooyu joxeef na ko xaaran aw parce que ngi daa ji jëriñ hikmati moom ku ko yàlla jox jox na la yu bëri goo xam ne di tàggal yooyu yëpp boo da nga waxoon texe goo xam ne texe ba tetu la de xam-xam buy jëriñ téere yi ñetti xaaj lañ téere yoo xam ne lim xam xam-xam yi xam-xam yi àtte rek la xam dafay liggéey nit ñi rek te moom li ñuy liggéey sax di ko jëfee su ñëw daal laaj ko mu ne la nangam la yoon wax waaye moom yoonam moom du topp yoon yoo ci téere moo mel ni sondeel mu ngay leerale nit ña waaye mu ngay lakk boppam rek la affaire ak téere yoo xam ne dafa xam yàlla kooku mooy ki nga xam ne yàlla jox na ko hikmatu ak téere yoo xam ne dafa boole yaar yëpp nag waaw xam na dara moom xam na waaw xam-xam saa rek rek di jëriñ nit ña waaw ci xam-xamam waaw koy salal diggante mu borom rek rek waaw kooku mooy ki nga xam ne tey mooy ci matasere mooy ci njoxi ci nati waaw sidina ali wax na juróom-ñeenti baat ñett ñi mi ngi ko wax ci biyaale mooy yàlla ñett ñi mi ngi ko wax ci hikmatu waaw ñett yi mi ngi ko wax ci adab de waaw wax na ci biyaale mooy yàlla ne yàlla doy na ma tiitar nga nekk di sama borom doy na ma tiitar ma nekk di sa jaam yow nag mel nga ni ma neex yàlla nag ma def man itam ma mel ni ma neex ma la neex yow de waaw loolu la wax ci diwaale borom waaw wax na ci matu ne doy na it wala ku la neex rek maramam nga jiir përiñ risaas lim bëri na bëri yee boo soxla ci moom dara rek naa leen nga rek joxal ku la neex rek sangam nga rek laajal ku la neex kooku jaanim la rek waaw it ma tima todi todi tinnañ ko ci siri yarum wante ñu gën a wét ci tiréem mooy xam-xam boo xam ne ñu ngi koy jàppe ci yàlla ci lu waasitatu te duwul ak yeneen yonent yi ñu ngi jàpp xam-xam ci yàlla waaye ñoom ay yonent lañ xeetu yonent nag dañ nañ buntam yonent yonent du am gannaaw yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam waaye itam moom yonent xam na ne bay na ci xeetam ñoo xam ne dañuy jàpp xam-xam ci yàlla ci biir yàlla sëtu moo tax ba ba muy dee mu ne allahu xamimati fii tumbe ne yàlla la def ñuy tiital ci xeetam xam-xam bi bàyyi ko ci yàlla ñëw ci jaam boo xam ne bii daf yonent loolu la ñuy tuddee hikmatu dañ ne hikmatu daal fekk la boo xam ne ci xolab jaam ba la jublu ci koy sànni noo di yàlla mooy nag mënu mënu fa am de moom du mooy yàlla bu sànni mooy rek tey rek fekk buy dal ci xolab jaam parce que ko sànni noo di yàlla waaw loolu moo moo di hikmatu rek tey rek xal ba dafay jokk ca péyeb yàlla ba su jokkoo ca péyeb yàlla ba su jaam bi di wax sax wax ja jógewut ci moom la jóge ca péyeb yàlla ba dafa romb ci làmmiñam rek moom sax mooy jëkk a jëriñu ci li ñuy wax su ko dégg itam danga ca jëriñu loolu mooy ci nekk rek su fekkee nag ñu wax bi ci bakkanab jaam bi rek la jógee ci làmmiñ yi rek la jógee mën da weesu nopp yi rek laa waxee de waa ki koy déglu lu yàgg yàgg di ci jëriñu di wax it wax ji bu bëree rek wala kalam sax xam ne loolu mooy sabaan alaykum waaw yow tuuti mu jox alaykum sax na xam ne jëriñ nañu saa suñu soob amun yoota ku joxee na ko alaykum ko xam-xam sa xaroot yow joxee na ko karan ñuy ko ñu aji bëri de wax na ci xam-xam ne wa maa uutiitu mina l-ilmi illaa qaliilan ne xam-xam li néew la ci joxe waaye ki matu moom mu ne man yoota li ki mata sa xaroot yow karan ko fi ram de wa maa zakkaru waaye yaa bi ci ilaa ulil albaab la waram sani sallam wa ma anfaqtum min sadaqa min nafaqatin ci laalamin sadax la aw nafartum ida ngeen nifar min nafrin ci laalamin nifar la te matal ko inna laa naka yàlla yàlla mu yow bala ñu xam ko ko leen ko fay dama li saalimiina yéen ñoo la way toll ñu bay tere asaka wala ñuy bañ matal seen nifar ñu naan seer ngay tere ñu ko leen buur in tuddoo ndem feeñal ngeen sadaqaati ay sadax ba ne ma baax na la ci yéen moom la def tabax nag boo ko feeñalee def nga lu baax feeñal nga lu baax wayn tuxtuha ndem nëbb ngeen ko wettuutuha fa ngeen jox ko alfuqara wal ñàkkaña wal nañ kaar ñu ba lakk ñu xeleel su fekkee nëbb nga ko nag ngeen tabax fa ba kenn gisu ko nga jox ko miskin ma rek waaw loolu nag ñoo gën de yonente na ne sallallahu alayhi wa sallam juróom ñaar yàlla leen di xaral ca ron keroog xarasam nga bés ba nga xamee ne keroog wut li mooy keroog nga rek ci jëkk ko mooy juróom jullit bu maandu ñaareel ba mooy ndaw lu fasi ci jaamu yàlla mos ba dox ci ak ndaw ñetteel ba mooy ñaar ñu sottante ci yàlla am ci yàlla ba taxalu ko ci yàlla waaye ñeenteel ba mooy koo xam ne xolam dafa aju ci jàkka ja di ko jógee daal ba yom see dellu xolam añ sa dëkk juróomeel ba moo tax xam ne jigéen ju rafet ju am dara joxoon na ko ci boppam mu ne ko dama ragal yàlla juróom beneel ba mooy si wéet di tudd yàlla day bëtam sa teek sa tiral gañ waaw juróom ñaareel ba moo tax xam ne sadaka na ci ndeyjooram nëbb ko ba càmmoñam xamul li nga xam ne moom la ndeyjooram sadaka rek laa affaire waaw sadax yi ko ndax yor na dëkk ko sa càmmoñ yëngu ko loolu soo demee ne ci jaay rek la ko nit mën a defee soo defee ñu ko def ci jaay danañ ko def ci denc danañ ko def ci jëfanteeg ñu léegi daal ndax ñoo waxanteeg nit silaa naka lay jaayee silaa si ñu def ci silaa koy jaayee oo wóor na ne soo wàññi loolu mu jaay la ko sax fii juróom wala juróom-ñett nga bañ a wàññi rek waaw dal di ko xëy si tuwa waaw njëriñ li ñaari yi nga xam ne moom la ko wax ñu ne da nga ko sarax moom sax du xam ne sarax nga ko parce que keneen du ko xam loolu ñu ne sarax gi sa ngay yor waaw
yàlla dana ci faral dari bakkaar itam rek ah yàlla am na li ma tamaloon da ngeen jëf rek de am na série bi itam am na série bi ci de lay sa alayka hu deewam kooku nu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne nit ki yéefar yi dañuy yalwaan yonent ne bu leen leen saraxati seen gëmuñ yàlla ndax ñu gëm kër ci gëm rek kër ci seen a gëm rek moom moom la ñu jubloo moom Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla moom kenn dugg ci yëfal yàlla na lay faa lay ka déer waa law dee ak ci wal seen yow waate rek moo la wax ku jub baax na ba jub ci yow wàcc la waaye di leen forcé rek bañ jub waaw wala di leen fexe mu tax ñu jub loolu moom moom la ci nekk walakin laa lu fi nekk yàlla yaa ji dana mu jubal man yasaa ku mu soob de wa maa tunfiqoo lu ngeen saraxe min xayrin ci daala ma maalal la wala yàlla bu ci kum ñaanee bopp teel de sadax ti sadaxoo ko pour miskin bi sa bopp tax nga di ko saraxe rek wala moom bu yéen rek muy julli yëpp waaw yow sa yoon nekkul ci loolu saraxeel rek yow ngir yàlla da nga am tabi fat wa maa tunfiqoo lu saraxewu leen illa btixaa wajhi laahi dara ngi takku yoolal yàlla de wa maa tunfiqoo lu ngeen saraxe min xayrin ci yiw yoo fa neex na matal ak payam yi lay ko jëm ci yéen de wa antum te yéen laa tuf la mën a deful wàññi leen dara de lil fuqaraa'i sadax ñeel na way ñàkk ña wala lil fuqaraa'i ñeel na way ñàkk ña àlla si na ñaaña wastiroo jàppeef na leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla de ñooy ahlu suffa rek ñi nga xam ne dañoo mel ni jar-jar yuñ jàpp ndax dara du seen liggéey lu mooy jihaad waa ak jàng alxuraan nga jàngal lu yónent su saxoo rek ñoom ñu génn dem ca mooy ahlu suffa Abu Hurayra sax moo doon seen jiit ñooy toog foofu dëkk léegi kapel yonent ba di soor toog googu moo doon seen place moo doon buntu kër yonent foofu rek lañ daa toog bu yonent bu ñam desee ci kër gi rek ñu ñëw sarax leen waaw su ko su xamut ñu dëkk ci seen xiif waaw laay ji wàcc jàng wattu ko njàngal lu yonent bi def de ñoom ñu génn dem ca waaw ñooñu la yàlla wax ne xéeman ñooñu de wala booy sarax saraxal ñooñu de laaya sat yoona xartan di ñu darban ak dox di lar di ci suuf ñoom duñ jot a tukki ngir yaxantu waaw wuti wuñ benn métier na seen morom ya ndax waaw ña nga jàpp seen bopp rek waaw ngir yàlla waaw nekkal yàlla rek di jaadal yàlla ak a jàng alquran ak a julli yaxte moom dana jort leen ak jaahilu ak réere mbitteen ndax li yaa ñu di waye xamal mi na temps fu fi ngi tagu ko de te dañoo fegoo fegu duñ laaj kenn dara te ku leen gis sax ngay defe ne dañoo am dara daa dem kum da nga xam leen di ci maam ci madarga seen waaye nag boo leen gisee rek waaw melaw ko am ak ku ñàkk yem naa xam waaw ca waaw toroxlu ga ak jeexi ci coono ci feeñ ca seen yaram ya da ngay xamee rek ne amuñ dara de waaye nag da ngay defe ne ndax risaas lañ ndax liñ laaj dara lañ laa yasaluna laaj te ñu naa sa nit ña dara bay sa jamal teen fan ak sa jamal liñ laaj nit ña dara de waaw sakal leen sa jamal wa maa tunfiqoo lu ngeen saraxe min xayrin ci daala moom aw yiw la ina laa naka yàlla alim naa jo xam ne moom bii ci moom le allasina yunfiquuna amwaalahum bi layli wa nahaari sirran wa alaaniyatan kooku du ko wasal wàcc na ci ibn ali bi talib dafa liggéey anoon waaw ci toora bi yowoon ba am ñeneen ci dërëm ñu ñëw nëbbu saraxe benn dërëm feeñ saraxe benn dërëm guddi mu saraxe benn dërëm bëccëg mu saraxe beneen dërëm de yàlla ne allasina ñaaña yunfiquuna danañu saraxe amwaalahum ay jub seen bi layli ci guddi wa nahaari bëccëg sirran ci lu nëbbu wa alaaniyatan ak lu feeñ falahum ñeel na leen ajruhum yooli jëf seen de inda rabbihim fa borom seen wala xawfun dees ragal alayhim ci ñoom wala hum deen ñoom yastanuun ñu yàqat la ci àlla xerte allasina ñaaña yaakuluuna danañu lekk riba riba safaanab sadaxa ngoog sadax dafay barkeel xalal dafay dolli xalal ci ne ci melo dafa mel ni mooy wàññi sadax bi nga xam ne dafa mel ni da ngay wàññi sa xalal kooku moo koy yokk moo koy barkeel amma riba bi nga xam ne dafa mel ni dafay yokk kooku mooy gotti xalal waaw moo koy wàññi de bi yàlla tuddee sadax nag ma ngay tudd riba safaan ba de mooy di dolli ci jëflante ci kay wala ñam yi te dig ba wala ca càmb ba moo na taxaw fi ñu buur fi ñu sukk ci seen i bàmmeel yi laa kamaaya xawmu dara kem góor ak ka ka dana dana dana yi laa kamaaya xawmu dara kem góor ak waaja yi laa kamaaya xawmu la si dara kem góor ak kaaka yata xabatoo dana normal ko seytaanu seytaane mi nel ma ci laa raw noonu jinne la de kuy buur ci bakkaram fay buur mel ni ku jinne jàpp rek waaw bu buuree rek daanuwaat bu buuree rek riba yettangi ko mu daanuwaat de ba safara fekk ko fa de saalika loole wàcc ci moom gaanam loole wàcc ci ñoom lekk kati riba gaanam ci saw si naka ñoom xaaloo wax nañu ne innamal bay'u naka jaay misu riba kem riba la dina jaay kenn mën ta jaay te defuloo riba waxuñ dëgg ala laaw daga wa ala laaw daga na yàlla al baya jaay wa harama haramal na mu riba riba jaay moom dara newu ci yàlla daga na ko waaye jaay la wax de waaye nag riba kooku moom yàlla xaraamal na ko de ne jaay ak riba mënuñoo taggoo nag waaw loolu du dëgg de waaw nar la woo xam ne huru kati waaw yaxantu kati huru yi ñoo koy wax de fa man jaaw ku jot na ko ma ngay sa sunag waat min rabbi tukki fa boromam fanta tam tay alo ñeel na ko ma sala sala dawe woon na mu de koo xam nag ne déggante doon na jëflante riba di lefle dërëm ñaari dërëm ba mu dégg ne yàlla xaraamal na ko nag mu daal di ko bàyyi kon nag la la wéyoon yàlla baal na ko ko de waa am ruhum mbiram jéggaleem nag da laay jëm na ci yàlla waa ndax yàlla baal na ko ci àllaaxiraam du ko baal nag loolu diggante ma yàlla la den ba mën a aada waaye toppal na gannaaw bu ko sëkk bi jotee walaay ka ñeele ga taw neere ñoo ram safara rek sungum ñoom xaalis dana way benn ñu fi àjjowale safara jama ko laaw riba kooku lu ko wasal wàcc na bañ na yàlla ngi aaye riba te moom dafay def riba ndax mi ngi ne ko saraxe benn ñu fay la fukk wala juróom ñaar téeméer ba noppi ñu bëgg ñu aaye loolu wër na yama ko laaw dana gàtt yàlla riba riba wayur bii waaw te muy dolli ak sadaqaat yi sadax de dañuy kalte sadax ak riba ni woowuñ de ndax riba moom yàlla tere na ko te gotti na ko dafay demee barkeem du yàgg yàgg borom riba alalam dafay mujj di gotteeku di gotteeku di gotteeku waaw ba mujj ñàkk ba noppi mu soog ko lakk de waaw dafay gotti soog a lakk sarax nag kooku yàlla daf koy dolli de waaw képp ku saraxe yàlla daf koy xuusalal waaw barkeelal ko itam waaw ba ba muy waaw dem aljana itam de wala yàlla laa yéetu bu dumu yool ku la kafaar mbir fu yaa kon day daganal riba addinin ku di bakkaar yaa kon de inna la si ne naka ñooñu amanoon gëm nañu waamilo tañ jëf saare ati farata ak naafile waaw xamoo tañ taxawal salaata julli waaw taw tañ joxe sakata asaka lawum ñeel na juróom yoolu jëf seen ñena rabbi fa borom seen wala xawfun di ragal alayhi ci ñoom wala am ngeen ñoom yaxtu nañu jàpp la ci alaaka de yaa ayyuha alladhina amanu yéen gaa ñi gëm alquran ittaqulaa ragal leen yàlla wasaroo bay leen maa baqee la des na muy riba ci riba in kuntum dem nekk ngeen moom ne di way gën am ay julli yu nuur ne ñoom day wax dëgg dootuñu lem le riba waaye li ñu xasoon lem le nag bañu amee leen ko moom daañu ko fayeku yàlla ne leen ragal leen yàlla te bay li desoon ci seen bati riba yi ci nit ñi bàyyi leen ko laa fay lam tafadoo dem defu leen nag xaasanoo xam leen te xar bi ci xaram yi laay bu tukkee fa yàlla war a sóoli ak ab yonentam de su fekkee nag ni waaw képp ngeen ne da ngeen di waaw topp riba gannaaw bu tëkk bi wàccee na ngeen xam ne yàlla takk na xare ab yonentam jëm ci ci yéen de yàlla takku xare ngir benn bakkaat lu may ñaari bakkaat rek lekk riba wax na ne takkal na xare waaw lekk katab riba ak kul noonu waliyu yàlla mën naa daal di wali yéen faqara adan too bil xar bi amul benn bakkaat nag boo xam ne dana tax yàlla takk xare lu may yooyu yaar fay lam tafaloo faasanu bi arbi melaay wala sóori wayn tubtum ndem tuub ngeen wala kum ñeena leen wala salaam waaleykum kasaani gis leen de laa taslimuna dolli ci leen dara wala tuslamuuna defut wàññi leen dara